الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جسان فيدو بي كوشي تي في جسان فيدو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 جدواك سوى شأنك برهما أنلت الكل جدواك سوى شأنك برهما جميل جابر الكسر لمن وافاك برهم كولك cheikh al islami tey ñu ngi ci kanu di waajal màggal gane si àdduna bàññes comme ci Nigéria nga nekkoon nu ko waa Nigéria dundee. ah macha allah salaamaaleykum wa rahmatullah Nigéria moom saakantuma kanu fii dëkk baay la moo tax dëkk bi ñéppa a sawar Nigéria yëpp a ngi sawar na fii kanu lañ koy defee baay daf cee waxoon lu bëree bëri bëri moo tax waaw. ah ñu ngi waaj waaj bu rëy a rëy ba xam ne sax foog naa Nigéria. yàgg nañ fay def gàmm gi waaye mosuñoo jug taxaw waaj waaj bu rëy comme bi ñuy def nii fii Kano alhamdulilah waaw. maa ah, dafa mel ni maa ngi Medina rek parce que fii taalibe bàyyi rek laa fi xam ah, taalibe Baay ñoom sama mag lañ suma xarit lañ dañ maa bëgg fii laa dëkk lu ma fanweeri at loolu la ko ëpp sax daanaka dafa mel ni Medina ci man rek. maa ngi kontaan ba bugga a dee alhamdulilah dem ba tey maa ngi jàbbante di ñëw ak dem ma kër sax waaye man sax yëguma ko sax parce que damaa kontaan gis naa doomi bàyyi sëti bàyyi alhamdulilah. taalibe bàyyi de man lu ma leen di wax sàkkantuma yi nekk Nigéria mooy nañ toog ci jàmm parce que fii Nigéria dafa am ay jafe-jafe tuuti dañoo pare suñu élection bi tuuti euh, te fii dafa am. nekkuñ ci jàmm bu baax daal waaye alhamdulilah ñun taalibe bàyyi daal dañ koy dégg rek maa ngi ñaan daal leen diggal na ñun dañ nekk ci jàmm loolu la bàyyi daal diggal nañ toog ci jàmm ak salaam rek waa Sénégal de maa ngi leen di nuyu <laughs> xamul lu ma leen di wax sax maa ngi leen di nuyu ñun ñëpp alhamdulilah bismillahi rahmaani rahim ngeen baal ma nag sama baat bi dafa xaw a dee te dama soj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 salaam ak asalaamaaleykum wa taala wa barakaatu maa ngi nuyu mbokk yëpp yi fi teew ci ak yi fi teewut di kontaan ci gàmmu Nigéria gi nga ne man de am na lu man ñaar fukki at maa ngi ciy ñëw ba ma ci njëkkee ñëw maa ngi Alaaji Abdoulaye ñoo ci àndoon Cheikh Matiya seen Nadir ak ñoom Baba Lamine doomu baay yëpp booba ba léegi yàlla def na maa ngi ciy ñëw waaye bët bu set damay gis kéemtaan bët bu set gis yokkute rawatina nag këru gi nga xam ne man fi laa yaroo dama fee nekkoon man ak sama mag Seydou mu gëstu ñës moom ma fi indi woon fi bi ma ñëwee aw si booba nii melagu ko woon ni fi nit ñi daal ñëwee melaguñ ko woon man maag bàjjen Fatou Ibra ñoo fi ñëkk a ñëw ak sëriñ aadinaar ñëw waa aadiwul Seyid bi ma ñëwee aw Seyid di ma gàddu di ma yóbbu fu nekk maa yàq bay bëgg a bu ma gayee tey kii jël ma boo liggéey kii jël ma léegi ne saan bi yaa faj jaañ gaañoo mooy yaay sëñ maama Seyda Xadi Faate Seyda mu gël mu gël jo ñu dem Medina kaw na ci dëj ba ne saan bàyyi daal di may oo na ma yow foo toll man ko man bàyyi ma de mu ne ma lan man jaamu ma ne hasbunallahu wa ni'mal wakiil sama doom nekk fu mu jàngute man ko man de dañ may jël si rek di ma yóbbu fu nekk di ma di ma di ma kii yóbbu di ma jox addiye di ma lu ne mais dellu ma jàng de ci doon ci la joxee nag nangu ma delloo si ba Sénégal ne ma si ba doom di yëg fu jàngut xam nga bàyyi dafa bëgg alxuraan ñu ngi sant yàlla ci gaamu gi bu baax a baax ndax ci lañ jógee waaye taalibe yi ñoom xamuñ ci loolu dara ñëpp ci jàmm bëggante nekk fu nekk bàyyi at bi jot mu wane karaama ndax gàmmu gi dañ ko daan def ci benn barab léegi ñu koy def ci barab yi fasantikoo ñu ngi koy def Cameroun dañ <coughs> koy def Abuja waaye feeñu ci sax dafa mel ni ñëpp benn place lañ ko defee ndax ci garaam may baay ak mbooloom baay kon baay yàlla ñu ko yàlla fayal kenn mënta fay baay yàlla ñu ko yàlla fayal yàlla yokk leeram waa Nigéria nag ñoom dañoo yàgg bëgg baay ba bàyyi xamanteeg buur ba léegi ñoo bàyyi woon mi mu xamante woon ba léegi dañoo gën di bëgg bàyyi man toog naa fii daaw jéeg sax buur bi sanu si invité ma këram bi ma demee amul lu ma defalut man bëggu ba sax doomi Mawlana Cheikh Islam ñëw fii te ñëw sama kër ndax moom bi mu waree xëccoo buur bi ak keneen jëmee Medina Cheikh Ahmed Tidiane Cheikh Ahmed Tidiane Khalifa daf koo jox kaala ni ko fal naa la ba pare bi mu ñëwee rek la ko fal te loolu karaama la alhamdulilah li yeedanaa li yeedanaa maa kunna linahtadiya lawlaa an hadaana Allah ñu ngi kontaan trop trop trop ci li nga xam ne moom la ñu yàlla jox ak li mu jox Mawlana Cheikh Islam ndax li mu am kenn amu ko ni mel kenn melu ko moom mooy. mooy koo xam ne kenn du moom bàyyi mooy kenn xam ne kenn du moom yal nañu yàlla tas ci barkeem mi ngi am ay sët macha allah ci àddina bi façon bu nekk am na ñu bari dañoo foog ne sëti Awsa la am ñii foog ne sëti Naar la am te am na ay Naar macha allah am na ay Jalma am na ay sëti Cherif ay Chorofaaw ñoom ñëpp lool yëpp ci bëgg bàyyi la ñun ñëpp bu ñu ñëwee tase fii nag ñun doomi bàyyi ak suñ doom yi dañuy mel ni te leen door a gisante ndax bëggante ak soppante. lu ñu am ñun ñoom ñoo koy bokk lu ñu doog di ko wax ñun ñoom ñooy toog di ko waxtaan ndax am mbégte ak kontaate ñu ngi ñaan na ñu fi fekk jëpp gàmmu gi dañ ñu ngi ñaan ñu def ko ci jàmm ba pare ci jàmm ñu dellu ci jàmm ñu ñëwoon ak ñu bëgg bëggoon a ñëw te mënuñoo ñëw yëpp yal na leen yàlla boole énu fi ba daal kenn amul fayam kenn ñu ko yàlla fayal kenn ñu ko yàlla fayal taasu ci barkeem ñu fekkee ko ay ati ati at yu bëri ñu ngi ñaan na suñu xalifa si Amady Diagne te wér ak mboolem taalibe ñu ngi ñaanal suñ imaam Cheikh Dia Aliou Cissé ñoo xam ne moom mooy jiite masjidu jaami yi ñu ngi koy ñaanal bu baax ñu ngi ñaanal doomu bàyyi yëpp ñoom Cheikh Maay ñoom ñëpp ñëw nañ ak ñoom sëñ Xataar ñoom sëñ Màkke Baba Lamine moom moom lañu ebal Cameroun moo tax leen gisu leen ko waaye mboolem yéen ñi fi taw dem ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen ñaanal yàlla barke seen liggéey جبل انجامو السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته يعني نكون فك يعني بري كل عام وانتم بخير الحمد لله نيغي سانت يالله بو باخ دي جولي سي يونت بي صلى الله عليه وسلم دي جوكلي كو سي مولانا شيخ ابراهيم ميغا خامن لي ييب موكو وارال دي لين نوي يين وا كو سي تي في ميغا خامن يينا ديبلاسي سنغال نيو بو في سي نيجيريا اندك جون دي نويو njabooti baay gi yëpp ci ndigalal suñu xalifa Cheikh Ahmad Tijaan radiyallahu anhu ci ndigalal imam ci ndigalal Cheikh Mahi mi nga xam ne moo jóge moo jiite délégation bi jógee Medina ak ay rakkam yu góor ak i rakkam jigéen ak ay jarbaat ay doomu mag doomi mu xaddam yeeg ñi nga xam ne daal ñoo mën a ñëw ñëpp jógee Medina ak journaliste yeeg télévision yi teew fii yëpp di leen ndokkeel ndax ñu ngi ci waajaayal anniversaire yi Cheikh Ibrahim ndax ndax ku nekk xam na ne buñ na Cheikh Ibrahima ci Nigéria ndax Cheikh Ibrahima yàlla daf ko may mu bëgg yonent bi bëgg bëgg koo xam ne sallallahu alayhi wa sallam amu ci kem waaw mu jaral ko bu gàmmu jotee dafay gàmmu ba pare gàmmuwaat te loolu moom rek moo koy def ci àdduna bi ñii dañuy gàmmu bàyyi gàmmuwaat ñii bàyyi gàmmuwaat bàyyi gàmmu moom muy màggal juddu bi di màggal ngénte li moo tax lu nit def rek yàlla fay ko ko ndax fay na ko ko ci àddina xaarut sax àllaaxira ndax buñ màggalee juddoom bi moom ci boppam Taïba Niassène ngénte li waa Nigéria ñoo ko jël di ko def di ko ayalante ci région bu nekk ren nag kanu gi nga xam ne mooy asmatul fayda nga xam ne fii lañ njëkkoon a ñëw ñi jébbalu ci moom ci moom lañ fii lañ dëkk fii lañ cosaanoo ñoom ñoo ñoo aye gàmmu gi ren kon nag duñ def rek lu dul sant yàlla bu baax di ko waajal rek ndax gannaaw suba la incha allah samedi taaliba yaa ngi jógee fu nekk ci àddina bi macha allah ci biir Nigéria ndax Nigéria ñëpp xam nañ ne dafa rëy parce jege na 30 état waaye région bu nekk macha allah nit ñaa ngi waaj rek di ñëw li ñuy def rek mooy di nuyu taalibe bàyyi ci bitim réew ak ci Sénégal yépp te di wax ne fu nit nekk rek na def dog rek ñaan ndax waa soppee Mawlana yooyu nga xam ne ñu ngi jógee fu nekk pour fekkee si bés boobu ñëpp ñëw ci jàmm ñu màggal bés bi ci jàmm ñun ñëpp ñu delluwaat ci suñu kër yi ci jàmm te ñu ngi ñaanalal nag mboolem soppee Cheikh Ibrahim di ñaanal Sénégal di ñaanal àddina bi yëpp waaw di dellu rek di leen gërëm di leen sant di gërëm journaliste yi fi teew yëpp kër yi télévision yi fi daje yëpp ak ñi ñu fekk ci Nigéria ñu teeru ñu teral ñook ak mbokk yi ñu fekk fii ak taaliba Baay yeeg bi ñu ñëwee ba léegi daanaka ñoom togguñ ñu ngi ci ñun rek di ñuy xidma di ñuy teral te loolu yëpp ki ko waral xam nañ ko muy Mawlana mi nga xam ne moo ñëwoon fii. te ba muy ñëw mom kenn andon téye sagam ba léegi adina bi yépp di di dajé fi ci liggéeyam bu rëy bu ko yalla may kon nak duñ def lu du sant yalla rek ak euh, wajal bés bi dal gannaaw suba la inshallah hmm. ndax foog ñu reconnaître ko ndax ku nekk xam na Cheikh Ibrahima ak Faydu tijan ya te isa Xaraab bi moom ñu doon màggal ci talibé yi njëkk ànd ak moom fii. ndax baayam sax moo àndoon nag moo eh, Mawlana Cheikh Ibrahim moom mu nekk xale ànd ak moom ñëw Medina bi muy ànd ak baayam di dellu si Nigéria ci la baayam génn àddina ci yoon wi mu del si ci baay jooytul ko ko wax ko ko la baay ñaanal ko moo tax teraanga ju nekk eh, def na ko fii ci kanu waaw démb nag la anniversaire am moom tam ñu doon ko ñaanal ndax bi mu génnee àddina ak léegi ci at la toll gouverneur bi ñëwoon na ak buur bi ñëwoon na ñoom ñëpp ñëwoon nañ daje foofu ñu ñaanal ko foofu ci kanam njabootam bi ñu paree dem ci dara xam ñaanal ko ndax lii yëpp moo ko daan taxaw wax dëgg yàlla bu buñ ko mës defee ci Nigéria rek loxoom génnu ci moo tax ñu dajee démb ñaanal ko yàlla jërëjëf jëf alhamdulilah ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci yeneen bi sallallahu alayhi wa gërëm suñu sëriñ suñu wasila Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu di gërëm suñu sang suñu sëriñ Mawlana Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu ñu ngi nuyu ñëpp nu yóbbi nag ñu ngi ciy jiital suñu xalifa Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass ñu ngi koy nuyu te di ko ñaana yàlla yàlla may ko fan wu gudd wa ànd ak wér li ñuy wax nag mooy am kontaan bu baax tey di sant yàlla. biñ ñëwee ba gis Cheikh Ibrahima lim fi liggéey kon lii doy naa sant yàlla ndax liggéey na fi liggéey boo xam ne kenn mënu koo nettalil kenn fii xanaa nga ñëw ba gis sa bopp te bi mu fi ñëw ñépp xam nañ nim fi ñëwee woon ànd moom kenn ak benn kartaabalam bi mu ñëwee ba dem nag ci la fi bàyyi lim fi bàyyi ba tey moo waral àddina bi yépp bëbbu ut si fii kon yal nañu ko yàlla fayal te yàlla may ñu ngërmaaneem yal nañu yàlla may ngërmaaneem te yokk suñu mbëggeel ci moom ah, li may wax nag mooy ne man de maa ngi dogg ñëw ren at mu jot dama daan gàntal tey laa dogg ñëw waaye gis naa loo xam ne réccuwuma lu ma ñëwee benn yoon te duma ko mës a réccu ndax fii ku fi ñëw sa mbëggeel ci baay dana yokk waaw toujours nag ñun li ñuy ñaan mooy toujours suñ mbëggeel di yokk te am nañ yaakaar ne fii ku fi ñëw sa mbëggeel dana yokk kon ñu ngi sant yàlla bu baax a baax ñu ngi gërëmtam tam Cheikh Mouhamadul Mahi mi nga xam ne moom moo ànd ak ñun fii ci kanu Mouhamad Lamine ma ngi jëm Cameroun am na ñeneen i njabootu Cheikh Ibrahima ñoo xam ne ñu nga jëm Abuja te loolu yëpp ci liggéey Cheikh Ibrahima la te fu ci nekk rek boo fa demee danga fa fekk lu tonni li nga bàyyi fii kon lii lu ko yàlla jagleel la li nga wax sànq loolu la rek jëmm la joo xam ne yàlla moo ñu ko wàccee pour mu xettali jaamu yàlla yi yàlla nañu ko yàlla fayal yaa rabbi yàlla nañu ko yàlla fayal ñu ngi fii nag tey ci kanu di waajal gàmmu gi suba ànd ceeg kontante bu baax ak di ko fuglu bu baax tam tey wax ne képp ko am aajo na ko ñaan waaw lu fi waaye ñaan am nañ yaakaar ci ne yàlla dana ko nangu waaw maa ngi am kontante bu baax tam. ci kàddu tey waa Sénégal. Mhm. def naa wax day wax ne nit ki soo ko bëggu tamit nga mhm. maandu si ay mbiram mhm. waaye tey mu wàccee kan gis lu mel nii lan ngay ñaaxaar su mbokk yi ñu bàyyi gannaaw xanaa di leen wax rek na leen xam nga boo waxee ne mbir mi fii la dañuy wax ne danga caalit waaye caalituñ dañoo xam li nga xam ne nii mooy li nekk waaye nag it ñi nga xam ne itam ñëwaguñ ñu ngi leen di ñaana yàlla yàlla baaxee leen bañ ñëw ci lii loolu lañ leen di ñaanal yàlla ndax euh, mbiru baay ku nekk bëgg nga cee bokk xanaa kay jagle la ku ko ci yàlla boole ak ku ci yàlla boolewut waaye ñëpp képp koo xam ne suñu xamee la suñu soppe la ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla xëcc ci lii waaw aoudu billahi min alcheytan arrajim bismillahi arrahmani arrahim alhamdulilahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله عن القطب المكتوم والبرزخ المعلوم أبي العباس سيدي أحمد بن محمد التجاني وعن وارث سره حقا بلا نزاع ولا انشقاق شيخي ومولاي شيخ الإسلام الحاج إبراهيم ياس رضي الله عنه بكي نيسيتان أترافير كوسي تيفي travers Kossy TV nuyoo bi gën a mag muy nuyoo lislaam muy asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu fi ñu leen di nuyoo nag mooy ci Nigeria fii ci Kano Kano bi nga xam ne moom la ñu ooyee asimatul fayda muy muy cap muy capitalu fayda atijaniya li waral ñëw bi tey nag mooy dañoo ñëw ngir màggal juddu Mawlana Cheikh al Islam Alhaji Ibrahim Niass. juddu Mawlana Cheikh al Islam El Hadj Baye Niass ci Shahar Rajab gannaaw bañ ko màggalee woon ci Taïba lu matagut ñaari semaine ñu ñëwaat fii ci Kano ngir màggalee ko fi Kano nag ñëpp xam nañ histoire yi Kano ak Mawlana Cheikh al Islam El Hadj Ibrahim Niass wax nañ ko waxati ko waxati ko waaye lépp luñ ci wax rek doyut waaye alhamdulilah bi nga xamee ne yàlla boole nañu ci ren ñi nga xam ne. ñëw nañ fii ngir màggal judd maulana Cheikh al Islam Alhaaj Ibrahim Niass ah ñun nag ñu ngi jógee Sénégal ñëw fii nii ci Nigeria ci ndigal yi khalifa maulana Cheikh Ahmed tijani Ibrahim Niass ñu ngi koy jagleel nuyo bu mag ñëw fii ànd ak délégation bu mag ci njiital yi naibul xalifa muy Mawlana Cheikh Mouhamadul Mahi ibnu Cheikh al Islam Alhaaj Ibrahim Niass ataala allahu baqaahum jamian ak délégation bu mag مدينة kanu nag waaw ci ndigali nag suñu way jur nag nga xam ne moom moo ñu yebal ñun personnellement ñu ñëw teewal si ko moom gannaaw ba ba ba nga xamee ne dafa am beneen ngànt boo xam ne sëriñ bi moo ko yónni ci yeneen mission mu yebal ñu pour ñu ñëw ñun ñu teew ngir teewal ko ñu ngi santaat yàlla beneen yoon ci may bi ñu yàlla may Mawlana Cheikh Al Islam Al Hadj Ibrahim Niass lu tax ñu koy sant ndax may ji ñu yàlla may Mawlana Cheikh Al Ibrahim Al Hadj Ibrahim Niass nekkut suñ coobare nekkut loo xam ne ñun suñ góorgóorlu la waaye namm bi bàyyi namm ne ñun danañ bokk ci ay ñooñam ak ñaan boo xam ne bàyyi ñaanoon na ko bu yàgg boobu juddaguñ ni ñun danañ bokk ci ay ñooñam ndax bàyyi ñëpp xam nañ xasida boobu muy wax rabbal ibaadi xaafira zunubi di ci ñaan ñaanam yu kawewoo yooyu am na fu mu ci wax waxee banaan xir liya saxban fudalan wa xir lii min kulli cheyin xayrahu wa kun lii mu ngi ñaan yàlla na yow yàlla soo may may ay ñoñ ak ay soppe ak ay taalibe ak ay àndandoo yàlla nag ma ca tànnal ya gën yàlla nag ñun suñu defee ñu nekk ay ñooñu Mawlana Cheikh Al Islam Hadj Ibrahima Niass def ñu ñu nekk ay taalibeem dekk ñu nekk ay soppeem nekk ay ay ay ay ndongoom kon la chëkk ne yàlla boole nañu ci ñaan googu nga xam ne moom la Mawlana Cheikh Al Islam Hadj Ibrahima Niass ñaanoon ci xirli ya saxban fudalan wa xirli min kulli cheyin xayrahu wa kun lii ñun nag dañoo ñëw fii ànd ak suñuy baay waaye nekk ay ndaw yoo xam ne dañoo ñëw. ngir mission bi nga xam ne Mawlana Cheikh Lislam Hadj Ibrahim Niass moom la nekkoon yar ci ay njabootam ñoom tamit ñu yar ci seen i doom ak seen taalibe nga xam ne flambeau bi dafay continuer di dem rek te Baye ñaanoon na ci jeunesse waxoon na ne ñaanoon na ci xasidaam boobu noonu ne wa ubrisu lil jiilil jadidi mithala muy wax ne alawtu lbihaara zaxiraati wa innani alawtu alqura walmudna balhal jibala أروم رضا الباري لنصرة دينه وأبرز للجيل الجديد مثالا دي واخني موم توكيمي ييغا خامني توكي تي ميشن ييغا خامني ميشن يونس صلى الله عليه وسلم لا غا خامني ورنا تي دمنا تي من شرقها الى غربها جوغي سود دم نور جوغي اس دم ويس يب غير يغالي دعوه بي يب دعوه بيغا خامني موي دعوه يونس بي صلى الله عليه وسلم waaye nag daf cee teg lu am solo ne gannaaw ba mu tukkee xar géej yi xar montagne yi xar jaww ji xar jéeri ji yëpp ne li ko tax a jug moom moo Mawlana Cheikh al Islam al Hajj Ibrahim Niass mooy wa ubrizu lil jiilil jadidi misaala mooy man nouvelle génération bi nga xam ne dañoo war a ñëw man ma nekk seen xudwa ma nekk seen télé bi nga xam ne lépp luñ bëgg a seetaan ci njub. lépp lu luñ bëgg a seetaan ci mbaax lépp lu ñu bëgg a seetaan ci xam-xam ak ci roy yonent bi sallallahu alayhi wa suñ jaaree ci man rek danañ ko gis léegi ñun nag ba ñu yàlla boolee ñu nekk ci ndaw yooyu noonu loolu moo waral ñëw bi nga xam ne ñëw nañ ko pour seet suñ bàyyi li nga xam ne bàyyi yar na leen ci ñu koy def nga xam ne flambeau boobu noonu ñun dañuy dañuy continuer rek soppe yeeg taalibe yeeg yi ñun ñëpp dañuy continuer rek di ko wéyal ba bés penc incha allahu taala loolu moo waral ñëw bi nga xam ne ñëw nañ ko fi tey ñëpp xam nañ àddina bi ni mel léegi gis nañ àddina bi ni mu jaxasoo gis nañ crise mondiale bi économie crise mondiale bi ci wàllu sentiment crise mondiale bi ci wàllu diine ci wàllu pas-pas ci wàllu lépp waaye li may waxtaan ak sama benn xarit barki ki dem bu Dakar moom yàlla def na ne dafa bokk ci feneen ñuy waxtaan mu ne moom dafa gis ne taalibe Baay Ñas yi seen seen fu mu toll fu mu leen gis rek àddina lu mu jaxasoo jaxasoo rek seen xol dafay dal ne ko ñun dañoo am sëriñ boo xam ne daf ñoo jëlee ci lëndëm yóbbu ñu ci leer jëlee ñu ci baat ci baatal yóbbu ñu ci xaqiqa loolu moo waral nag ñëpp di wax ne képp koo xam ne xam nga bàyyi rek ba ñam bàyyi rek da ngay xam ne bàyyi moom mooy solution bi moo tax dëgg-dëgg bàyyi daal la bàyyi la solution daal bàyyi la solution loolu rek lañ mën a wax daal Cheikh Ibrahim huwa alxall Cheikh Ibrahim huwa alxall alwahid jërëjëf jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu ñu ngi la ñuy nuyu yéen ñëpp kenn ku ci nekk ci turam ak santam à travers Kossy TV nga xam ne <clears throat> daj na àddina bi yëpp ñu nga xam ne noonu la fayda bi tàkkee woon fee ci Kossy di borom di Mawlana Cheikh Ibrahim Niass radiallahu anhu nga xam ne mu ngi juddu ci weeru rajab nga xam ne rajab yàlla yàgg nañee indi nga neel ndax yoon bi sallallahu alayhi wa sallam ci weeru rajab si la yàlla def ñi Abdoulaye muy baayam ak Aminatu ñi jaxasoo leer gi jógee si Abdoulaye taxu ci Aminatu ëmb ëmb yonte yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye si weeri rajab si la yàlla rañaane woon yonte yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu indil ñu julli nga xam ne mooy gën si lu yàlla indi nga xam ne yonte bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne julli su baaxee àllaaxira suñ xisaabee julli su julli gi baaxee dootuñ xisaabati leneen li waaye su julli gi bonee da leneen li su baaxee sax sa jëf du baax comme nag yàlla indi laan dañ ci Mawlana Cheikh Ibrahim Niass radiallahu anhu ñaari semaine fee ci gannaaw ñu ko doon màggal fee ci Taïba ak mbooloo mu bëree bëri awsa yu bëree bëri jugee fi ak ak gan yu bëri jugee fii si àddina bi ñëw ñi màggal ko ñu toog fii nag waa Nigéria ñaanoon xalifa Xaaj Abdoulaye Niass ñëw na ko dañoo bëgg pour ñi def gàmm gi di ko def fii di ko màggal ay ati at ñi di ko màggal te wolof dafay wax ne lu yàgg dëgg la waaye dañ ne lu yàgg te baax dëgg la yàlla dimbali ñi nag ñi di ñëw fii si njiital Cheikh Mouhamadul maaxi rakki xalifa bi mu ñëw fii nii ñëw ñaan ak délégation bi ay doomi baay yu bëree bëri ak ay kànd kan seti baay ay kàngam fu nekk nit jógee na fa ñëw ngir màggal bis bi nga xam ne kanu bàyyi ba mu fi ñëw moom kenn moo fi ñëwoon ànd ak kenn nga xam ne tey boo ñëwee baay dafa ñëw daj àddina bi yépp waaye loolu tamit dajut ñaamaat beneen ngëneel mu dolloog weeru avril nga xam ne avril si weeru avril si la yonte yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam judd ndax bur xabliyaa bu nga xam ne moom la bàyyi bind nee na la mu ngi lay mu ngi ndokkeel weeru avril ak bu cher avril cheri karam yi comme loolu su dajee yooyu yëpp ak ngëneel yooyu yëpp su amee ñu ñëw fii nii ñëw nañ ngir en euh, teewal Cheikh Mouhamadul Makki nga xam ne dafa waroon a teew waaye mënut a teew dafa am ay itte yu ko xalifa bi sant ak ittey pee bi looloo tax mu yebal ñi ñu ñëw si njiital Cheikh Mouhamadul maaxi ñëw ngir nga xam ne moom la ñuy màggalee bisi baay bi nga xam ne suñ ko màggalee jar naa màggal ndax شوفها كان لولا يلا ما يترا nga fête indépendance bii di Sénégal nga xamne ne la yàlla def nga am sa indépendance loolu la ñuy màggal président bi di invité ay président yu bëri bëri Sénégalais bu nekk di takk sa drapeau nga xam ne nag ku nga xam ne moom moo ñëw goreel xol yi goreel goreel nit ñi goreel nit ñi si yàlla wan ñi kan mooy yàlla xamal ñi ko bañ ñi olof dafay wax ne ku la oo si boppam nax na la ku la oo si leneen lu dul yàlla sonnal na la ku la oo si yàlla nag kooku bàyyi euh, noppal na la booyal na la bàyyi nag moom mission mooy su ñëwee premier contrat bu muy def ak yow sax su naan la Cheikh Ibrahim nga ne Cheikh Ibrahim amut li ñuy wax ah Anta war bu ko yaa ngi noonu sa borom a ngi noonu ba mu fi jógee yàgg na ay ati at man na ñeent fukki at ak nangam waaye booba léegi mu ngi mel ni tey la bàyyi gën a nekk ak ñun tey la bàyyi gën a. Mm, di wax ak ñin tey la ak bàyyi lu mu ñu diggee woon tey la gën a dëggu tey la nit ñi gën a yokku tey la nit ñi gën a koo bëgg jeunesse bu nga xam ne moom la doon wax léegi ni ko Cheikh Ibrahim Mouhamadul Mahdi waxee ne dafay wax naa rumuri del bari lu sati jili nii woobu li ji li jadidu misaala loolu jeunesse boobu dañoo ñëw topp Cheikh Ibrahim jeunesse bi yépp ñu ngi ñëw mel ni tey baay gënal lañ seen ndey gënal lañ seen baay mu mel nii dañoo xam baay ay ati at dëkk ak moom waaye loolu mooy su bi dëkku ñoog moom waaye baatin bi tàqalikoo ñoog baay benn yoon comme looloo tax baay gënal lañ seen ndey gënal lañ seen baay bu ñawee sax waa Nigéria gi bu ñëwee dégguñu làkk làkk bu ñuy wax gàmmu dégguñu olof dégguñ dara waaye lu ñuy wax xool mooy lu nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na doomu aadama jëmmam ak jëmm ji am na loo xam ne su baaxee lépp baax su yeewanee yépp Euh, su yàqoo lépp yàqu ñu ne ko loolu mooy lan mu ne loolu mooy xol comme bàyyi moom si xol yi lay waxee mooy facteur yi jaam yi si xol yi yàlla mooy facteur yi jaam yi si yàlla looloo tax jaam bu nekk rek boo ñëwee di nga gis sa bopp si Cheikh Ibrahim looloo tax ñu ñëw tey ngir màggal bis boobu nga xam ne pour am indépendance pour mm, gorel nga xam ne moom moo ñu goreloon looloo tax ñi ñëw fii nii ànd ak si ñuy bàjjen ak si ñuy bàyyi ñëw ngir ñëw ngir màggal loolu. Mm. jërëjëf macha allah ñu ngi gërëm waa Kossy TV bu baax di ko ñaana yàlla bu baax a baax ndax wax dëgg yàlla baay lu mu doon joxe rek mooy xam-xam ndax xam-xam mooy loo xam ne lu mu lay wax lu yàlla wax lu yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax soo ko gisee bëgg ko soo toppee yont bi soo toppee baay di nga am texe ga dina texe am texe àllaaxira di nga bëgg yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam topp ay ndigalam bàyyi ay tereem loolu rek la woon comme na Kossy TV bu ñëwee tuddee boppam Kossy nga xam ne fa la fayda bi ballee woon fa la fayda bi tàkkee woon nga ñëw di daj xam-xam. dara taxut ko jóg lu may jox xam-xam bi yok legui fayde bi amul dara lu nga xamne mo ngi xew ta adina bi fu nek ngi wax nan cause TV cause TV ñi ngi koy ñaanal bu baax cause TV dem ba nek ay télé nu fayde bi dajé adina bi yàlla nako dajé adina bi yépp ñi ngi lay gërëm musa bu baax ba ñi ñaanal billahi ala sayidina muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدر مقدار العظيم ورضي الله عن خطب المكتوم وبرزق المعلوم شيخنا أحمد التيجان رضي الله عنه وعنا به وعن خليفته ووارث سره مولانا شيخ الإسلام الحاج إبراهيم رضي الله تعالى عنه maa ngi tudd Mame Abdoulaye Niass doomu Seyda Mariam Niass bu Amérique ñu koy ñu USA alhamdulilah tey waroon na fee teew waaye dafa am tuuti gàllankoor moo tax mu mu yebal man ma ñëw teewal teewal ko euh, ñu ngi gërëm waa Kossy yi parce que seen liggéey rafet na lépp lu li ñu war a wone ñu ngi koy wone ci ñu ngi rafetee li ñu ñaan yàlla lépp seen taxawaay gën a dëgër te lépp lañ mën ren yàlla lañ mën dañ ko ful déwén incha allah ci barke yonent Muhammad sallallahu alayhi wasallam te balaa boobu ñu ngi jiital suñu sëriñ. suñu kilifa suñu papa suñu lépp suñu khalifa muy Cheikh Ahmed Tidiane ibnu Cheikh Cheikh Ibrahim Niass radiallahu taala te ñu ngi sant suñu imaamul masjid Cheikh Ahmed Tidiane Aliou Cissé radiallahu taala anhu te ñu ñep waron nañ fe te way dañu am tuti galan kor motax ñëwul waye suñu fi yoni sen sen rak yu góor ak yu jigen te xamne suñu tuddé suñ kenn rek Cheikh mohammed al Mahi ibnu Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu taala anhu moom teewal na fi ñëpp ak di tudd suñu benn yaay nga xam ne moom suñ ko tuddee rek moom tamit teewal na fi jigéen de muy Seyda Ndey Xadi Jaw ñu leen di gërëm bu baax di gërëm doomi Mawlaana yëpp yi fi teew te lépp lu leen war ñu ngi koy def te ni mu gën a rafetee alhamdulilah fii li bàyyi doo man yuhibbunii wa man yaraanii fii jannati xuldi bilaa buhtaani tey soo ñëwee kan wax dëgg yàlla di nga gis ne mbëggeelu bàyyi soo wootee nga wax fi rek la yem parce que ñoom wax dëgg yàlla ni ko bëggee euh, jege na doyoo wax dëgg yàlla moo tax yow da ngay ñëw fii da ngay kontaanee mel ni yow ci biir mbir dina nga nekk moo tax loolu sant yàlla mënut a wees loolu xam ne loolu yëpp Cheikh Mawlana Cheikh Islam moo ko liggéey parce que bi mu fiy ñëw moom ci lu moo fi ñëwoon waaye te alhamdulilah te foo tourné Cheikh Ibrahima yi ngay gis radiyallahu anhu muy mbedd yi muy oto yi photo baay foo tourné moom ngay gis. waaye loolu Mawlana Cheikh Islam Hadj Ibrahima lu ko may loolu yëpp mooy bi mu waxee isa saar xayrun nasirtu waraahum wa in xalla yowman fal masiru bairu mooy fu gën gi mindee fu mu tegee tànkam rek foofu laay teg sama tànk loolu day wane ne moom diine moo ko ñor li li li li li yonent Yàlla Muhammad indi Cheikh Ahmed Tidiane Chérif topp ci moom loolu la loolu ci loolu la teg tànkam mustigee dindi mooy lu yàlla bëgg mooy julli woor génn asaka aji màkk ci loolu rek la def te tamit ci loolu la yar ay doomam yi muy wi ci kaw ba ci suuf ñun ñi nag tey ñun tamit dañoo ñëw fii pour topp seen ginnaaw pour xool jàng ci doomu Mawlaana yi fi ne pour ñu tamit ëllëg ñu mën a roy seen ginnaaw parce que nit amoo lu du say waajur say waajur lu ñu def rek soo ci to soo koy gis pour ñu dindi ko ci yow day jafe comme soo laajee yéeféer li ñu sax inna wajadna abaana ala ummatin wa inna ala azari muhtadun ñun tamit pour wan ne ñoom xam ne sax islam mooy dëgg waye dañu gis seen waji di def rek ñu top ci ñu motax ñun tamit alhamdulilah buñu ñu gis suñuy wajur yi nek ci li seen papa nekkon ñun tamit ñu ne xamna ñu li mo ñu war te ci li lañ fas dundu ci lañ fas yaru te allah ci lañuy dé fek bu fekk suñuy sëriñ moy alhamdulilah sant yalla rek fi mom so fi ñu sant yalla ngay def jere jefe bay liko nit ñi jere jefe bay jere jefe bay la ilaha illallah la ilaha illallah laa ilaha illallah assalaamu alayka ñoo ngi lay ziyaara Seyda Fatia Niass yaay boy ñoo lay ziyaara assalaamu alayka ñoo lay ziyaara yaay boy xol yaa ngi nii wallahi ñoo ngi lay ziyaara assalaamu alayka Niass ñoo lay ziyaara rooha yaa ngi nii yaay boy ñoo lay ziyaara assalamu alayka yaay boy ñoo lay ziyara yaay jëm yaangi ni yaay boy ñoo lay ziyara alaykum wa rahmatullah eh, bokki julit yi bokki taalibe yi ñu ngi leen di ziyaar te di leen ñaanal yalla di sakku ci yeen ñaan eh, di leen gëreum eh, li ci njëkk ginnaaw bi ñu bay ñess Baye Niass bay ñess Niass jërëjëfee bay ñess di wax alhamdulillah benen yoon di sant yàlla di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant suñu yaa Zeyda mi toog nekk Zeyda Fatiya di ñaanal suñu yaa Zeyda umul xayri yàlla yàggal ko fi may ko wér ci barke Maulana Cheikh Al Hadj Ibrahima Niass euh, luñ ci bëgg a wax day euh, ay tënk kàddu yu gàtt la rek. ci lenn ci li nga xamante ni moom mooy daayira ansaaru diin bi nga xamante ni moom moo nekk Niger. Euh, nekk fa bu yàgg mais ñu nekk ci moment bu nga xamante ni ñu ngi ci buntu Seyda Umu Xayri Coota président bi nekk Makhtar Niass euh, ñii nga xamante ni suñuy doomu sëriñ lañ nekk di doomu Seyda Umu Xayri nekk suñuy seriñ ñun tamit ba fépp fu ñu jógee ñu ànd ak ñun ñu wooñu ñu ñëw ànd ak ñoom ci sécurité ànd ak ñoom ci lépp lu nga xamante ni moom lañ bëgg ñu ngi leen di ñaanal yàlla da ni ñoom. Euh, sirru Cheikh Ibrahim lañ ñoom Seyda yii Seyda Fatiha Seyda euh, Zahra Seyda bépp Seyda Seyda Inaay Seyda Khadija ñëpp ñi nga xamante ni doomu maman lañ maman la ñuy gis si ñoom ndax ku ko topp tey ci stade bii nii yaakaar naa di nga xam ne kii sirru Maulana Cheikh Alhaji Ibrahima Niass la te ni mu koy defee fii. noonu la koy defee Niger noonu la koy defee feneen ak feneen ak feneen ak feneen kon Seyda lu lay ñaanal mooy fan wu gudd wér yaram di wax ne ñun waa daayira ansaaru diin bu Niger ñu ngi sa ginnaaw comme ñu ngi ci ginnaaw Seyda yaakaar naa ne lu ñuy wax kéwal du topp doom ja bët kon nag alhamdulillah ñu ngi lay ñaanal vraiment di remercier ñi nga xam ne yàgg nañ leen a bëgg a remercier te gisuñu bunt bi mooy ñu mel ni 2STV ñu mel ni Sen TV ñu mel ni euh, Alfayda ñu mel ni Kossy TV.

ak waa télé bu nekk Sénégal ay télé yu mag man saamaan koy seetaan suma kër Niger am naa ko moom rek laay ngeen ñëw fekk ma ci suma place bi pour laaj ma suma wolof bi baaxut waa ñu ne ma def ko noonu rek ñoom danañ ko traduire to léegi lu may wax rek mooy ngeen gis gàmmu gi gàmmu bàyyi la e, pour bis bu mu juddu bis boobu la su ñëwee at waa Nigéria yi danañ ko defal gàmmu fu nekk dañuy ñëw ci Nigéria ak e, côté yëpp dañuy daje fii suñ ko defee ci beneen département bi yoon at bii di ñëw ñu def ko ci beneen département léegi Kano lañ ko def e, Kano mooy asimatul fayda loolu la bàyyi wax kan la bàyyi kii fayda bi waaw mooy fayda bi fii la yëpp nekk fii la bàyyi commencé ñëw fii la commencé jot bi fii la mukaddam yu jëkk yi fii lañ nekk to fii mooy fayda bi gën a am doole to at bi fii lañ def gàmmu gi yéen gis ngeen tey nit ñi luñ kii comme ci suuf la ñuy génn loolu Baay rekk moo ko mun a am moom rekk mooy mun a daje nit ñi ñu bari ñu bari ñu bari doo mun a xool nit ñi sax pour bari <laughs> loolu rek laa mun a ñëw ci